sax nga am information boo xam ne de source sûre li ngay wax am nga foo ko teg. yoo xam waaye pour nga bàyyi enquête bi wëy est-ce que jarul nga noppi. ba waaye maa njëkk a xam maa njëkk a wax loolu jaral la nga génne ko pour yàkkal ña nga xamante ne ñu ngi nekk seen liggéey ñu def attention bu baax def très attention luy doy na waar trop. te lii moom boo fa duggee moom film événement ba yëpp fa la xewee moom. mosuma gis lii. cii di wax fii kii di wax fee. <laughs> ñu daal di ñëw euh, ci ci fond bi comme ça nga daal di ñu ci. Euh, ñëwal ci dundu waxoon nañu ci démb waaye am na ci yeneen éléments yoo xam ne. Euh, mujjewaat na ci bees. yow foog hmm. naa ne. bi mbir mi amee ba léegi ñu ñu ñu dellusiwaat si waaye fi ñuy ñëwee. maa ngi la hmm. koy fàttali démb. Hmm. ne la mbir mi mi ngi am le 18 août. waaye boobu fekk minuit jot na. xam nga minuit bu jotee ci dimanche dañu jàpp ne lundi la. parce que à partir de dañu wax ne ñu ngi ci ñu ngi ci lundi. mbir mi ci la xew vers les coups de 22h jàpp 4h du matin. mooy comme ni ma leen ko waxee woon démb mi ngi xewee ci technopole. ci appartement bi nga xam ne Aziz ak euh, Boubacar Gano ñu gën koo xam ci Waali foofu la ñu dëkk. Mhm. Euh, wax naa leen démba ñi nga xam ni teg nañu leen loxo maa ngi koy wax nabu xaw yow dañoo déggoontewul woon. Mhm. avant màggal la division des investigations criminelles am kum ci njëkk teg loxo kooku bañ ko tegee loxo. laataa ñu koy enquête ba ñu xamee ay indice ak yooyu ni jàpp ne présumé la ba tey jàpp ni moo def parce que ñi jàpp ñëpp dañoo jàpp ne c'est les présumés meurtriers moo ñu ñu njottu ne laale nañu wala takk nañu ci faatu Aziz Dabala ak Boubacar Gano mhm. kooku ñu ko jàpp deux jours avant màggal ñun bu ñu amee information bi man en toute responsabilité dama oo bukkunte ne ko am nañu ku ñu jàpp kat waaye dafa am ay kilifa yu ne bu ñu ko bind ndax bu ñu ko bindee mën na yàq enquête bi ndax ci jamono bu ñu ko jàppee ñeneen ñi jàpp ne def nañu ko li ma lay woon ci eh, xarañte division des investigations criminelles ba ñu xamee ni ñooñu dem nañu Touba dañu déployer équipe mm-hmm. yóbbu leen ku ci nekk fi nga nekk ñi ngi lay surveiller ñi ngi xam fan ak fan nga nekk mm-hmm. parce que téléphone Wally mooy XR bu ñu récupérer 3000 francs yi. Mm-hmm. foofu la ñu mën a xoolee ba xam kii ak kii fan la yem ak ci téléphone boobu képp koo xam ne wax nga ak moom. tey bu ñu jëloon sama téléphone exploité ku nañ xam ne wax naa ak yow démb wax na bu ak keneen loolu peut-être que xam ne police moom moo ko mën a am. Euh, privilège pour def ko léegi bi mbir mi amee euh, kii di nabu ba tey dañoo jàpp ne présumé la ci mbir mi waxuñu ne meurtrière la waxuñu ne dara dañoo jàpp ne mhm. police dafa jàpp ne laale na ci ci ndigalu procureur ñu placé ko en garde à vue parce que jàpp nañu enquête mi ngi wéy contradiction moo tax ñu teg ko en position de garde à vue parce que dafa wax ay wax yu dafa wax ay wax yoo xam dafa waroo parce que ci benn kàddu dafa wax ne Aziz dafa feebaroon mu yóbbu ko hôpital ñu sampal ko butéel. ci beneen kàdd bu ko laajee mu ne mu ci enquêteurs yi ci exploitation bu ñu def dañu gis ne ñoom ñaar dañu àndoon ca ñetti mbaar ci ay cent yoo xam ne Ndeye Ndiaye Tyson pour revenir ci loolu parce que démb dama wax Ndeye Ndiaye Tyson am ñu jël photo Ndeye Ndiaye Tyson promotrice bi nga xam daan tëgg làmb te nekk ci wàllum politique taf photoom. nekkul kooku. xam nga tooñ nañ ko moom tam mu jaaxle ay famille am jaaxle ba ñenn dañ ma woon ne ma ban Ndeye Ndiaye Tyson la xam nga ñi jël seen bopp tuddee ko mami wala nabu wala Ndeye Ndiaye Tyson bari na. Mm-hmm. kii doon organiser ñetti mbaar ay cant dafa tuddee boppam Ndeye Ndiaye Tyson mais nekkul Ndeye Ndiaye Tyson boobu di euh, def ay bëre ak loolu loolu def dafa baaxoon tam. ñu préciser ko parce que. Mm-hmm. bañ ko waxee fii ci plateau bi dafa am ku jël photo Ndeye Ndiaye Tyson daf ko commencé wax Ndeye Ndiaye xool ci ñaari kàddu yooyu ñu laaj ko ne ko waxtu bi waxtu bii foo nekkoon mu doon da doon nelaw takk der yi wan ko ne waxtu boobu waxtu boobu yaa ngi doon wax whatsapp nelawoo woon kan nga doon waxal mu ne xamul kan lay waxal xam nga pour les besoins de l'enquête kon mënoo cee génne noonu mhm. loolu moom moo ko fa téye mu am ñeneen ñoo xam ne jàpp nañ leen Mamadou Lamine jaaw moom la njëkki jàpp mhm. ci Touba mhm. te Mamadou Lamine Diaw nijaayam moo ko boole nijaayam ni mu ko boole mooy bi mu defee crime bi ba ca suba sa mhm. nijaayam dafa liggéey woon mooy ñett ñi bokk famille mu woo nijaay ji ne ko dama def crime nijaay di dëgg si tànkam ànd ak moom ñu dem Touba màggali bu ñu fa demee ñu dafa am lu mu jëfandikoo moom Modou Lamine ba àndatul ak sagoom nijaay ji si la profité demul ci police de dafa dem ci sapeur pompier yi ne leen xam naa ki def meurtre Aziz ñoo ñu ànd ak moom yóbbu ko ci gendarmerie gendarmerie ñëw jël si ko. Hmm. noonu la dem nijaay ji mu waxoon moom moo ko dem boole donc ñu jàpp leen euh, ki nga xam ne jàpp nañu ko waxoon naa ko muy Serigne Sarr. Mhm. alias Ndës ñu koy woowee Ndës. Mamadou Lamine Diaw wax naa leen jàpp nañ ko Ousseynou Diaw ak Assane Diaw ñoom ñoo bokk même famille euh, ki nga xam ne itam li ma leen ko waxoon mooy enquête bi ñu jàpp ci Nabou muy benn jigéen kese boo xam ne jàppagum nañu ko ci mbir moomu. Mhm. démb nag commencé nañu def li nga xam ne moom mooy Euh, audition yi. tey jamono jii ñu wax ak tàmbaliwaat nañu audition yi dina amaat tam confrontation. kon ñu naan am na ñaar wala ñetti jigéen ñooñu waxuñ lu am. amul benn jigéen buñ ci jàpp. budul nabu lay. mi dul nabu mi ñu téyeekum garde à vue. amul beneen jigéen boo xam ne euh, bokk nga ci mbir moom mbay Seck itam euh, mooy ki ñuy wax mbay Seck mooy borom casquette bi ñu waxoon ne. Mhm. mbay Seck la tudd démb maa ngi wax ne mbay Seck la tudd. Mhm. tuddul Mbaye Seck. Mhm. dañoo juumoon ci li nga xam ne bi xaaral ma joxe turam bu. turam bu bees. pour mhm. bu baax bi xam naa dinaa dinaa si ñëwaat. envoyé waat nañ ma ko voilà tuddul euh, mbay Seck mu ngi tudd Demba Demba tudd il s'appelle Demba mbay mooy boobu casquette bi ñu waxoon ne jàpp nañ ko. Ah, te mu def interview boobu dafa mujjee def malaise sax. Mhm. gis nañ benn frère am muy paate di wax na affaire bi daf ko choqué parce que kenn jàpp ko. Mhm. moom itam li ko dugal ci mbir mooy interview bi nga xam def na ko. naan ñoo nekkoon nag ñoo defoon lii ak ñoo defoon lii. ba ba xale yi moom dafa louche. waaw ki ñu ki ñu mooy moom la xale yi njëkk jàpp mooy borom casquette waa TikTok ak waa Facebook la njëkk jàpp naan kii mhm. dafa louche nekk tamit am itam beneen sit bu taxaw naan kooku dafa taxawoon di jël wéev kenn jàpp ko mu ngi tudd Demba mbay tuddul mbay Seck Mbaye Seck ñu ne mooy manager bi. mbay a ngi si seen kër. demb dafa jékki-jékki def malaise tellement ko peut-être que mbir yooyu nga xam ne jotoon naa am Euh, bi mbir yi amee nabu ba meurtre bi am ak yooyu xam nga li ñu mhm. njëkk def mooy dañoo woo police Pikine woo waa police scientifique woo euh, ci la ñu jëlee mbir mi après jébbal ko enquête bi waa DIC mhm. muy waa division des investigations criminelles ñoom ci la ñu ubbi enquête xam nga bi loolu amee tam autopsie am na mhm. autopsie bi pour ni nga wax ñu dellu soit si dafa wax ne am na douze jam-jam yoo xam ne par arme blanche la ñu ko jamee ki nga xam ne moom mooy Aziz euh, mu am Euh, provoca mu am provocation tam éventration mooy euh, lu ñu xotti ci ci ci biir bi. Hmm? loolu la ñuy wax loolu mooy autopsie bu Aziz. autopsie bu Waly dañu ne euh, médecin légiste bi dafa wax ne am na trentaine de plaies cutanées mooy trente jam-jam yoo xam ne dafa ànd ak pointu longue sur les faces antérieures et postérieures du haut du corps ci yaram bi yépp am na ci benn jam-jam par arme blanche boo xam ne dafa enfoncé wu ci 7 mètres. sectionnant le tronc vasculaire ak partie initiale de la tranchée euh, de façon complète euh, ci nuque bi ak yeneen onze plaies yoo xam ne onze coups moom la ñu constaté sans compter éventration abdominale avec issue de viscères hmm. ñu jàpp ne dafa amoon volonté tuer maanaam kooku dafa amoon volonté pour faat ko loolu moom la autopsie joxe waaye dafa am leneen loo xam ne bees na ci hmm. mooy ñi nga xam ne teg nañ leen loxo ñoom tam commencé waat nañ leen di leen déglu d'accord léegi euh, bi ñu leen dégloo téléphone Aziz. Mhm. ñi ngi doon wax dafa baax rek pour ñuy leeral téléphone yi. waaw amul retrait d'argent pour mu leeraat. amul ku ci dem retire ci xaalis téléphone Aziz dafa am xaalis bu jógee ci téléphone am dem ci téléphone kenn ku ñu jàpp ni meurtrier la muy comme par exemple yow sa xaalis jóge ci man ñëw ci man muy transfert mm. léegi kooku. li koy seetal ba xam ndax Aziz moo ko ko envoyé pour passe wala dafa am keneen ko def transaction bi mooy dafay dépendre ci ban heure la Aziz génn àdduna. d'accord téléphone ki nga xam ne moom mooy Aziz boobu muy XR boobu. Mhm. jaay nañu ko fii ci marché Colobane bi mbir mi amee ba ci suba sa. bu Aziz bu Aziz wala bu Wali. bu Aziz bu Aziz la ñu jaay waaw moom la ñu jaay ci marché Colobane ba policiers yi xam nañu euh, fan lañu ko jaaye ak nan lañu ko jaayee. d'accord. Euh, téléphone bu Wally mhm. dañoo jàpp ne mu ngi ci loxo Assane Assane mooy ku ñu jàpp vers les coups de 4 heures du matin bërki démb ci Touba moom tam andi nañ ko ci kanamu enquêteurs yi mhm. te li ci gën